Thiès ni ñu leen ko baaxoo rek di diggee di leen ko defalee ci ba bu nekk ci waxtu wi seen buntu programme xam-xam ne dellusiwaat na ak yéen ki leen di defal waxtaan wi di seen mbokk taalube Ousmane Mouhamad Lamine Ba waaye ñuy fàttaliku di fet feggoo ak sunu sëriñ sunu kilifa di xaaji Mouhamad Lamine Ba di ñaan yàlla defal ko tawfiq ba mu dellusiwaat ci programme bi waaye mbokk yi ñu ñaan ngeen dégloo ñu xel yi te bañ ñoo dégloo xol yi ñu ñaanit ngeen jéggal ñu rëcc rëcc yi ak njuumte yi te xam ne suñu jubluwaay mooy defar sunu jubluwaay mooy lépp loo xam ne dina yéwénal ci wàllu dundinu doom aadama yi waaye ci wàllu diine la wala ci wàllu aada la wala ci wàllu environnement la wala ci wàllu njàng la lu mu ci mën a doon programme xam-xam le dina ci jubale gémmiñam incha allah ngir gën a yéwénal loola waaye mbokk yi ñu xam ne alkamaalu lillahi mat yàlla rek mooy ki ko def ni ñu leen ko baaxoo rek di defalee di ziyaara mbooleem réew mi di nuyu mbooleem ku dëkkee ci réew mi jiital ca bopp ba ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi di cheikh professeur alhaaji docteur Yahya Ejeje Jammeh sunu ko ziyaara ziyaara nañ mboolem administration am waaye tamit ziyaara nañ mbooleem ku nekk di liggéey ci ron nguur waaye naka noonu it ñu ziyaara mboolem kalifa diine yi jiital ko yàlla teg ca bopp ba di fadilatu cheikh imaamul akbar imaam Thierno Alioune Maska suñu ko ziara ziara nañ mbooleem ak imma yi ak asatise yi nekk ci réew mi yépp mbokk yi ñu ngi ziara yi tamit mbooleem koo xam ne yaa ngi sàlloo di seetaan programme xam-xam le moo xam ci réew mi nga nekk moo xam bitim réew nga nekk ñu ngi lay gërëm di la sant ci teewlu bi nga xam ne yaa ngi teewlu di seetaan programme xam-xam le ci waxtu wu nekk di ñu topp ci sunu émission yi passé mbokk yi su ngeen bàyyee xel ci programme yi passé ni ñu leen ko daan waxee rek lépp lu jamono indi wala lu tolloog li jamono di wax dinañu jubale sunu gémmiñ ci loolu waaye lépp loo xam ne lu ñu yaakaar ne bu ca waxee dina jëriñ askan wi incha allahu dinañu ca jubale sunu gémmiñ mbokk yi ñu doon waxtaanante ak yéen ci wàllu xaj màkk waaye naka noonu tamit tabaski dagandu woon ñu ñu di ci profito di ci ziara mboolem jullit yi di ñaan yàlla nañu ko fekkee at yu bari ñaan ñu jéggalante sunuy bàkkaar te yàlla boole ñu ñun ñëpp jéggal ñu ay bàkkaar yi ñu yor ñaan yàlla nangu deret ji ni mu ko waxee rek lan yanaala allahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaalu taqwa minkum kon yàlla lam ca soxla mooy jëf ji nga jëf ngir moom ngir ragal ko ragal yàlla nag mooy sopp yàlla ndax ko ragal topp ko te koo topp sopp ko kon te ko sopp mu soppi la kon ku ragal yàlla danga ko topp te ku ko topp danga ko sopp te ku ko sopp dana la soppi ci xeetu anamu jikko yi nga xam ne dëppawut ak insaaniya maanaam humanité ak nite àndut ak jikko yooyu loolu moo tax ragal yàlla am solo ci wàllu dundinu doomu aadama daanaka rek sax nag li àdduna bi di jàmbat yépp mënoon nañu ko tënk rek ne ñàkk ragal yàlla képp la boo gëmee yàlla mooy foundation bi nga teg ca ragal ko daanaka lépp lu ñuy tawat dana fekk ne yow saafarawu na ci sa boor kon ragal yàlla lu am solo la moo tax bi ji di aji màkka alquran ko na nga fàggandiku yóbbal wa waaye nag fa inna xayra zaadi li gën a baax ci yóbbal yi ngay yóbbu mooy ragal yàlla kon ragal yàlla lu am solo la mbokk jullit yi ni ñu ko waxee rek dem nañu màkk yàlla dimbali na xujjaaj yi demoon ci kaw jàppandal ci wàllu jaamu yàlla yàlla matal na dimbali na leen ñu matal seeni sart moo xam yay farata la moo xam ponk yàlla moo xam yay sunna la waaye léppi aj daal fexe nañu ba yàlla dimbali leen ñu matal ko ci diirub li ñu demit nag ak lu waay sàggan sàggan jikko yi nga xam ne jikko yi ñaawteef la joo xam ne lislaam daf ko bañ fexe nga ba yóbbuwaale woo ko wala boo ko yóbboo it denc nga ko fexe ba kenn xàmmeewut ko ci yow waaye noonee nag la alxuraan bëggee noonee la yàlla bëggee nga saxoo jikko yooyu nag ndax pratique nga ko lu mu néew néew ci ñaar fukki fan fanweeri fan ak ala alin ñu bëgg nag ni nga góor góorgóorloo ba fi nga nekkoon nga nekkee fa jikko ju baax nangoo jaamu yàlla nangu itamit di teet ñaawteef yi noonee lañu ñu bëgg nag nga pratique loolu continuer ko ba incha allah yàlla defal la tawfiix ci jikko jooju nga sàlloo ak moom waaye mbokk jullit yi ñu war a jógee nag màkka daldi ñibbisi fii nga xam ne fi la ñu jógee woon dem màkk loolu di junj bu am solo mooy bi ñu fiy jógee dafa am lu ñu taxoon a jóg bi ñu demee tamit dafa am lu ñu doon def bi ñu wëññeekoo ñibbisi tamit dafa am lu ñu war a mel am na nu ñu meloon balaa ñuy dem mooy lan mooy yàlla dogal na ponk lislaam yi juróom lañu ñeent yi wala yi ci ëpp yaa ngi ko doon jëfee fi nga dund fekkee ku am alal nga yaa ngi doon génnee asaka te gëmoon nga yàlla yaa ngi doon julli yaa ngi doon woor weeru koor bu dee ku wér nga waaye ak lu ci mën a xew ponk bii di àcc ah ñi mu yomb bariwul yàlla yenke wala jàppandal la nga dem pour joxe ji farata boobu ngir matal say ponki lislaam waaye balaa ngaa dem dafa am ay jikko ak ay bàkkaar yoo xam ne yépp mu ngi dëppoon ci sa kaw te waxoon naa leen tooñ ñetti façon la benn tooñ bi mooy bi jaam bi tooñ boroomam ci boppam beneen mooy tooñ bi jaam boppam ci boppam ba tey beneen tooñ bi mooy bi jaam bi tooñ moroomam ci boppam bi maana li nga xam ne moom la yàlla bañ tere la ko nga def ko tooñ nga yàlla ci sa bopp ndax tooñ yi ngay tooñ yàlla duut luy lor yàlla waaye jaamu gi nga koy jaamu yi tamit yokkul dara ci matam jëriñut ko dara ca nguuram nga kon tooñ bi ngay tooñ sa boroom ci sa bopp rekk lay dellu moo tax mu ne inna allaha la yaslima naasa say an walakinna naasa anfusahum yaslimuuna ah, walakinna naasa anfusahum yaslimuun maanaam yàlla tooñut leen waaye tooñu leen ko it ci seen ci boppam da ngeen koo tooñ ci seen bopp kon ni ñu leen ko waxee rek tooñ bi nga tooñ sa borom tooñ bi nga tooñ sa bopp ak tooñ bi nga tooñ sa moroom ñetti tooñ yi moo am yii yëpp nag am bi nga xam ne mooy bi gën a rëy am na bu gën a garaaw mais am na bu ko gën a rëy bi gën a garaaw mooy bi nga tooñ sa moroom ndax léeg-léeg nga tooñ nit jéggalu ko tëla wala sax nag bëgg nga ko jéggalu gisuloo ko pour jéggalu ko wala nga jéggalu ko jéggalut la waaye bi gën a rëy mooy tooñ sa borom borom bi bind kenn fekkewul mu dundal kenn fekkewul mu jàppandal ak wàcc ci àdduna kenn fekku ko ca ba boo génnee fa nga ne woon di xorom bi nga woon ñëw ci xurum bi gën a yaatu xurum boobu di àdduna këla ëmboon dañu naan mucc na ndax yàlla rek mooy ki ko xàndul ba nga ba mu mucc nit ni yow am mboolem cër yi nga am ci sa biir jaar ci fu xat génn fa ak bakkan yow mi mu génnee it nga dese bakkan loolu ak mucc kepp la yàlla it mooy ki nga xam ne moom rek moo man loolu kon boo wëlbati ko borom boobu mu may la noyyi àdduna bi moo ko fi def boo ñëwoon war a créer sa àdduna bopp space bi nga war a dund ngelaw oxygène bi nga war ko wuti jant war laa tiim nga war ko créer suuf nga war cee taxaw di dox war a soxla ndox yii yépp nga fekk ku la ko palaanal ba pare dëgg-dëgg lenn la soxla ngir nga jaamu ko nga di ko tooñ kon loolu lu rëy la waaye mu am yërmande yow nga néew doole dékk ko say loxo sàkku ci moom jéggal mu jéggal la moom ca matam ga ca la dëgg jébbal jéggal la yow ci sag mata di ci nga dëgg di ko jéggalu kon kat bàkkaar yooyu boo ko ràngooyee ngay dem jéggaluwante ak say bokk ñu jéggal la nga dem jéggalu sa borom sa borom jéggal la te boo ajee aj gu ñu nangu dafa mel ni bés bi nga juddoo ci sa ndey amaguloo bàkkaar dara taqul la ci tilim noonu ngay may mel ca yàlla te yàlla